raditu mbokk julit yi daarul xuraan ca Touba Daaru Marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara ju nu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngoog jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam-xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe Mam Awolo ca Daaru Marnaan ci njiital Serigne Makhtar Diène am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'étude BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Mame Awa Lo ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ñu duppee ko Daaru Alimu Kabir bloc B bi njéene Lagan bloc bi Touba Xelkom ak complexe scolaire franco ci njiit njiital sëriñ Makhtar Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo leen ak ñoom mbind mi tàmbali na weeru août ubbiteeg école bi weeru octobre incha ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 82 wala 77 404 99 03 complexe scolaire franco arabe Mam Awolo ak njiit la Serigne Makhtar Diène di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér. waaw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 الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلى وسلم وبارك على عبده الأمين والمبعوث رسولا في الأميين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين والآخرين محمد وآله الأتقين الأكرمين العالمين العاملين والزاهدين الناصحين وعن الناس العافين والمذهب عنهم الرجس المطهرين كما صلى وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أصحابه المهديين الهادين والأبطال المجاهدين والغلاظ الأشداء على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين وأنصار الدين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين من بايعوا تحت الشجرة ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم وانتهجوا نهجهم محبين في الله لهم واستغفروا لهم كما لأنفسهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين gannaaw buñ sant yàlla mi wax ci téeram bi ne julli day tere ñaawteef ak lu bon lépp loo xam ne sariya rafetluwul ko rekk te dégg it ci waxam jooju ne kenn du mën a bàyyi ñaawteef lu lum ne mukk féeg mi ngi sàggane julli teg ci julli ci yonent bi ki nga xam ne bu masa yëg coona ci julli lay noppaloo ci la xelam di dale ci la xolam di féexe ci lay fàtte jafe-jafe àddina yépp teg ca ñaanal ki ni fàttali ko ay jëfam fii yàlla gën koo dolli ngërëmam gannaaw loolu lépp mbokki taalibe yi mbokki julli yi maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Muhammadinil Muntaqa saahibil himmatil aliya والخليفة العام للمريدية أيده الله ونصر وحفظه وستر ورحم سلفه وغفر di leen ndokkeel ci mbir mu màgg mi tax nu daje fii muy fàttaliku jëf joo xam ne li mooy gëm yàlla gu mat te dëgër ak wóolu ko ak wakkiilu ci moom képp ak doyloo ko muy julli gi sëriñ Tuuba sëriñ bu mag bi julli woon ci géej gi tooba ak tey jii di téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ñett ci tubaab yi ndax mi ngi amoon 1995 ba ren di 2023 muy karaama gu rëy gu yàlla may sëriñ bi waaye di bind bu a ña jànge lu bari bokk na ci jàmm gi tax yàlla bindunu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun wari su ko sàggane ak lu mën a xew te bokk na ci saggane ko def ko ci fudul waxtoom di bàyyi ba waxtoom jàll di fay ci ludul dul bokk na ci itam ñàkk farlu ba matal sart yi war jiitu julli gi te ñépp xam ko bokk na ci itam yàkkamti bay bañ def ay farata ci biir julli gi walla defeen wa di baña a mat loolu lépp sëxwu ci julli la te bañ koo fullaal di ko sàggane bañ koo def ni mu waree te ñii demee noonu la yàlla doon tëkk wax ne fa waylun lil musallin julli yàlla rëyal na mbiram lool te woyofalu ci dara lu néew néew ba tax na nit mën nay julli daray saxu bañ caa am mu sell ni mu war a selle ci saahir te du tax boroom mucc ngir lan ngir ne da doon njistal yàlla taxut wala seddu seddu ca mu seddu ca laneen seddu laneen def ko ngir yàlla ak ak laneen seddu ci laneen ak bañ cee seed yàlla dara ñooyam lu ci ne rek mooy yàllay kese bañ a fii tekkiwu fi jamooj gi nga xam ne mooy juum wàññi lu ci bokk wala juum dolli lu ci bokkul te mën a dal ku bu yàlla teg koo kii julli kii julli kon waxi nopp bi muy wax waa sawara buñ leen di laaj lu leen fa dugal lim na ay sabab yu leen fay dugal waaye ñàkk julli la jiital teg ca ñàkk joxe asaka kon bañ a aja joxe asaka itam dara jëru ko bi muy wax ñàkk a joxe asaka wala ñàkk a dimbale miskin rek bi sakli naa am waaye asaka jëm faratal moo gën a yeyey ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر julli ak asaka ñaare yàlla da leen di boole kon lu ni ko ñu liñ julli ñore lu koy boole rek loola ñor na ko waaye bokk na ci liñ mën a jànge ci julli sëñ bi ci géej gi amuk soloom akub dayoom ak wàcc waayam fa ba tax mu jaral ko lim ko jaral waaye daa xam fii ko yàlla teg rekk te moom ngërëmul yàlla la doon wut mussa dañ di ci soññee ba wax nañu ne bokk na ci li mujje dénkaane ci waxtu yu néew lu jiitu mu wuju boroomam wax na ngeen farlu ci waxtu juróom ak saraxe ak ñaan moom gis nga ni mu toppee ndigalul yàlla tere yonent bi bi mu nee julli rek daf ne saraxe kuy digle saraxe kon digle asaka waxi nopp taalibe yépp war xam loolu ñaan it yàlla ne ud'uuni astajibu lakum ku bëgg a am lu man di doon nañaan yàlla ku bëgga mucc ci lu man di doon nañaan yàlla yàlla yàlla moom moo moom ñëpp te ñëpp la fi nekkal ci kaw nag nuy jéema jaar ciw yoonam assiraatul mustaqim wim nu tëralal te mooy sariya bi jaarale ci jaamam bi ko gënal ci jaamam yépp di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nan gën a fonk julli gën koo jox yitte roy ko ci sëñ bu mag bi tey sun sëriñ ñun murid yi di sun roy waaye ko am baneen sëriñ it noo noo war a bokk jëmuwaay ndax ci yoon sëriñ sépp li yonent bi daa digle lañ war di digle lim daa tere lañ war di tere ni ki nga xam ne yonent bi ci boppam it ay ndigalim ak i tereem mi ngi dellu ci ndigali yàlla ak i tereem ndax fil haqiqa moom yàlla rek moo sañ a moo saña tere ku moom da koy jottalil rek wala muy jottalil ku koy jottalil inna al amra kullahu lillah mbokk yi at mun dugg at mu bees mun duggati nañ jéema a dabaatal lañ sàgganoon caat na ko njëkk ci wàllu julli ndax kenn xamul dana génn at mi dugg walla déet ku ne rafet njort képp la am te ku dem ku ne liis koy jëkk laaj mooy julli bu jagee lu ne mën naa jag ndax ak yombal da cay am bu jagul amul leneen luy mën a jag ndax ak jafeel da cay am jaam bi jëfum yu rafet ci lu man di doon ak lum néew néew buñ ko dee dàkk di ko ca laaj génnam ca daldi yomb te fonkoon julli daa ko rafetal mën na ko jural loolu ay jëfam yu ñaawit ak lum néew néew ci lu man di doon tànn ko di ko ca laaj mën na ko jural musiba te sàggane woon julli daa ko bañ a def walla daa ko ñaawal mën na ko mën na ko jural loolu kon jullee ngoogu yàlla nu yàlla notol seytaane ak bànneex ak bakkan ban man koo fonk di ko sellal nim ko bëgge ten xam ne fonk ko sellal ko mën nanoo musal ci lor yi yépp ndax moom borom bi moo ne inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli day tere ñaaw di terelu lu bon te yooyu nag ku ci mucc baax rekk moo fay sës yàlla nan ko yàlla defal maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp kilifay diine yéeg kilifay aada yi di ci jiital Abdul Karim Fofana mi nga xam ne moo fi teewal kilifa réew mi te bokk ci kër gi di taalibeem sëñ Moustapha ñu ngi koy jottaloo suñu nuyoo ñi itam ak nuyoo sëñ Mountakha yaa nañ fi teewi ati ati at te at mu dikk yàlla nañu dàqal ma weesu yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def fi xéewal mu law ñëpp am jàmm am xéewal ci barke sëñ Touba mi tax ñu teew fii wasalaamualeykum wa rahmatullah kontaan na ñëpp tàllal amin ñi ngi sant bu baax nag teewaayu